waaw mais dama ne bu ñu ne euh, ñaari jafe-jafe la muy la presse ak. Euh, ak les man d' accord parce que la presse bi defe naa yéen yéen a wax. éthique et déontologie lépp looy wax. na la leer teg ko ci dëgg. moom ñi muy wax ak ñi muy doon tontu mooy ñi nga xam ne ñu ngi wax loo xam ne ne wóoru leen wala li ñuy wax amuñ source suba ci loolu la ñuy wax mais waxuñ ne bu kenn wax parce que nag ki euh, Ousmane Sonko wala Diomaye kenn mënul fexe ba presse bi du def liggéeyam mais nag ñay def seen liggéey ñooñu waxuñ ña nga xam ne ne defuñ seen liggéey wala ñu ngi xool loo xam ne ne day yàq wala ñoo xam ne ne ñu ngi def loo xam ne ne pour jaxase xelu nit ñi ñooñu lañuy waxal maanaam ñooñoo tax ñuy wax may ne xam nga ne kon wax bi c'est ciblé dafa am maanaam wax dafa am dégg-dégg dafa mel ne gis nga comme waa APR yi nii sànq euh, ay soxna Aïcha nee na amaguñu xaru tabaski na ngeen mais tabaski bi ku bëggul xar ci yow la ndax la tax képp ku nekkoon APR Benno Bokk Yaakaar bu jëndee xar neel huub sàccob bu bàyyee rek nga jël sa xar. parce que déedéet waa déedéet waa déedéet xam nga lu tax déedéet dama ne. jaañ war nañ toll déedéet dama la bëgg a wax ne ne buñ ne huub sàccoo nga bàyyee xam nga ku sàcc ku maanaam ku sàcc doo ragal yow bu ñu ñëwoon léegi ne sàccob doo daw parce que xam nga sa am ay conscience da nga sincère wala da li ngay def. am nga wax ah, bëgg a wax ne xaw ma naa. tu veux dire que ñëpp ñu régime ñoom ñëpp dañ doon. lu ma la wax buñ ne huub sa coob ko bàyyi amal am nga xar. lan nga bëgg a wax foofu dama la wax ne ne maanaam ki maanaam ki sàccu wala ki nekk ci lu jub du ragal dafa bëri ñoo xam ne dañoo ragal instant bi dañuy mbubboo loo xam ne ne pour. seen jafe-jafe ak seen mbóot ñu lëlbënte ko ñoonu ñooy tax ñooy maanaam ñooy. jaar ani ani ani ani rapport bi li ngay wax ak tabaski sénégalais. c'est-à-dire waaw dama la bëgg a wax ne qui sont là ah. bëgg jënd xar pour tabaski anu le rapport. man waaw dama la bëgg a ne ne maanaam li Ousmane Sonko wax ku ko déglu xam nga mu ngi wax ci ñi nga xam ne ne jël nañ alalu réew mi. loolu liggéeyam la nag def. waaw liggéeyam du tere ci biir liggéey bi dinga nga informer tamit sénégalais yi xam nga ñu bëri ñu ngi ne nañ jàpp nii nañ def nii nañ def nangam du loolu wax na ko mais tontul na ñi xam ne ne attente bi ñuy xaar ci ñoom rëy na mais nañu déglu te ànd du tere lañ bëgg a def dinañ ko def. pourquoi menacer. non menace amu ci non non non déggoo ma ne menace. non menace amul non non non non menace ku a gis la menace. waaw non non menace amul Amadou déglu ko. menace amul peut-être ku ragal. mooy jàpp na li lii ay menace la man loolu laa jàpp parce que nit bu jubee man de laay wax bu jubee parce que nag yow Aïcha Aïcha Diagne Aïcha yàgg nga ma invité fii ci palaato ci moment boo xam ne ne. bëri nga ñoo doon invité. toog kenn ñëwul yaa daan ñëw. kon lu taxoon loolu parce que la ma nekkoon dama ko gëmoon mu nekk dëgg. mooy temps yi ñuy jàpp appel à l' insurrection ku ah. insurrection ñu jàpp la. ah yow yow it da nga jël say précaution de loo wax rek ne ah. waxuma li précaution mooy la ma doon wax tamit dëgg la moo tax ma doon wax ne ne. léegi ah. pour pour pour pour réconforter Amadou. <laughs> pour réconforter Amadou. menace am Euh, benn benn utile am na benn violence verbale boo xam ne koy sentir ci ay waxam te comme ni ñu koy waxee. Euh, ñi nga xamante ni ñoo utiliser la violence boo xoolee ba ci biir dañu am faiblesse. loolu benn la mais li Amadou ne menace am na am na parce que bu taxawee ne euh, ku am fit bu ñu amee fit. la ñu bindoon nañ ko bindaat mais ça c'est des menaces loolu bu nekkul menace lan la intimidation loolu menace la intimidation la tout simplement pourquoi menacer ak les magistrats ak dafa ne ñi am fit ñi am fit mooy ñi nga xam ne ne ñu ngi doon bind loo xam ne yenuwul maanaa te dëgguwul nañ ko defaat yow mi doon bind te li nga doon bind nga am source bi comme yéen du journaliste yi nga xam ne lu ngeen di bind dans les normes da ngeen war a am source bi xam nga kooku amul problème mais ki nga xam ne daan na bind te amul source pour fexe euh, noot maanaam ñi jiitu bañ mun leen jox dara loolu loolu mooy ci bu dee loolu mooy menace mooy ku jubul moom ci yow loolu menace lay doon mais ku jub loolu du menace ci yow